yaakaar naa loolu am na solo ak euh, leeral yi nga xamante ne nii leeral nañ ko. Mm. je pense que tey bi amul amul kii comme ni ñu daan def ma ak yow xiiroo ngaaye bi. tey nekk nga à ko quoi nekk naa euh, saata fi ñuy dugg nag. Mm. faa taxaw ci waxtaan ji mm. ku la xam-xamee la. Mame Mbaye Niang say esthétique mm-hmm. say profil mm-hmm. ba ci sa fond d'écran bi moom moo ci nekk moom laay waaja wane ni ñang baalo wan ko nit ñi gis ko après ah, ma yokk li ma ci waaw mu ngi noonu mhm. ñang baalo ñang baalo mi ngi nii saarata bu maam mbay ñaa mhm. waaw loolu moom kenn dootu ko nataabale déedéet d'accord mais fu mu toll nii kay dafa mel ni macha allah yal na yàlla xeeb dolli yàlla mosal ñu ki seytaane ak làmmiñ marqué naa sama empreinte man ci ñang baalo moom rek laay topp d'accord bu ñu arrière waaw maanaam ay at ci mhm. coow bu kii woon ki nga xamante ne moom mooy Alioune Sall instant yi dafa ñëwaat ci moom de xam nga loolu. Aliou Sall coowam. bi ñu naan suñu milliards yi. waaw suñuy quatre cent waa waaw mhm. sénégalais yi. Mhm. ñu ngi taxaw temb laaj ne. Mhm. Mame Mbaye suñu vingt neuf milliards yi. fan la nekk en tant que nga nekk doomam. bëgg ko loolu. ndax nga ko gisee li sénégalais yi mu menace dañ ko attaqué nañ leeralal. xam nga lan laa ko gisee. waaw. xam nga nag man tubaab fakkaar la macha allah njabootu président Macky Sall ñëpp a baax. ministre yeeg DG yeeg député yeeg ñëpp a baax ñoom ñëpp a gën man ma soisir maam Mbaye Niang ne ko yaay sama leader ci hmm. lan fulla fayda ak bañkat hmm. léegi ki ko ñoon vingt neuf milliards yooyu hmm. du ñoom ñoo war a yor nguur gi nii ah nee na loolu am na am na ay document na ko tegaat ci taabal bi ñang baala dawut mi ci réew mi ñan baalo dawul. kon kon taxawa rek kon wóolu nga ko ba. wóolu naa ko gëm naa ne loolu ñu ko waxal noonu du lu am hmm. mais bi ñu àttee procès bi daf ko gañe ki ko tuumaal bi ñu ko nee indil ay këyit hmm. da wax ay fii laa ko bàyyeek fee laa ko gisoon ak fee laa ko lee te nat mu amoon fulla ak fayda gu toll ni moom la ministre Mame Mbaye Niang hmm. dem jàkkaarlook moom wan ko ni réew mi dama fay am njaboot sama soxnaa ngi fi samay jarbaat a ngi fi ñi ma bëgg ñu ngi ci ñu ngi ci réew mi dem jàkkaarlook moom te boobu la gënoon metti nag dama ni bu dee loolu am na. Hmm. nañ ko teg ci taabal bi ñang baalu pare na. kon pare nga ñu leeral vingt neuf milliards yi. waa déggoo li ma la wax ki ko ko jiiñoon. waaw ko ko jiiñoon du hmm. ñoom ñoo war a nguuru nii. Hmm. nañ ko teg ci taabal bi. Mame Mbaye Niang amelul benn senegale 15. may ma rek ma yeggali damaa wóolu ki ma nekkal. waaw wóolu nga sa bopp. damaa wóolu ki ma nekkal. damaa gëm ki ma nekkal damaa xam ne ki ma nekkal liggéeykat la xam nga lu ministre Mame Mbaye Niang jël nañ deram yàqu ko ci Prodac waaye ak a baax ak a mën a liggéey Abdou hmm. hôtel bee suñu président bu bees bii bi bientôt le 2 avril di nekk chaque jour hmm. ñu koy vidéo muy otel Azalaï hmm. ñoom Ousmane Sonko bi mu génnee prison moom ak le président Bassirou Diomaye Faye fa lañ defee li nga xam ne moo di seen conférence de presse pourtant pourtant liggéey Mame Mbaye Niang la ah Mame Mbaye Niang hôtel Azalaï gis nga otel bi mel ni per mel ni jamaa li nga wax ni révélation gis nga hôtel bi mel ni jamaa Mame Mbaye moo liggéey hôtel boobu ci tourisme bi mu nekk hmm? xam nga lan la fi mambay Mbaye defaat hmm. am na hôtel bu ñuy wax euh, Riu hmm. Riu hôtel yaa ngi dégg jàng bi soriwul nag yenn prononcé duma du ma ko mën mais Riu otel la tudd waaw Riu am na am na euh, Mame Mbaye bi mu demee fi nga xam ne moo di biir assemblée nationale ñuy jàllale budget am na député boo xam ne opposant la mais bi mu jàkkaarloog Mame Mbaye Niang ko ne liggéeykat nga man opposant laa de mambay waaye yow liggéeykat nga mhm. parce que ñun député bu ñu demee foofu la ñuy dal muy ruy Hôtel Rue Hôtel xam nga ñaata hôtel la mhm. cent deux hôtel la dans le monde partenariat boobu mambay Mbaye moo dem jëli leen indil leen Sénégal ñu installé Sénégal mu gën a yokk tourisme bi Mhm. xam nga kon kii dañoo yàq deram ci Prodac rek may ma ñëw. Mhm. Rue hôtel boobu. am nañ seen vol may ma may ma yeggale. am nañ seen vol spécial am seen i bus spécial bu loolu weesoo. Mhm. hôtel yi ndaw yi dee woon Sénégal ci tourisme bi. Mame Mbaye Niang daf leen dekkaliwaat. non Sénégal ñi war a am financement non non taxawal rek. waaw man xam nga ñoom dañuy laaj seen xaalis. ma leen di xamal ne ñang baal amul leen 15 gis nga waxu Prodac. waxu yàq deram kese la woon mbirum politique woon mais kii liggéeykat la dañuy taxaw di ko wax Prodac man ma bëgg a wax sénégalais lim liggéey Sénégal voilà Mhm. li mu liggéey Sénégal a bëgg a wax sénégalais gis nga Saly tourisme bi dafa dee woon ñan baa la yore waat tourisme bi foofu ci sali jël hôtel yu ndaw yi nga xamante ni que ay hôtel yu ndaw lañ woon mu jël leen jàppale leen ba ñu nekk hôtel 4 étoiles hôtel yi xam ne ay. Ah, xam nga wax ne am na solo rek may ma ma yeggali may ma ma yeggali may ma ma yeggali yeneen hôtel yi nga xam ne ay hôtel yu ndaw lañ nekk hôtel yi nga xam ne ay hôtel 4 étoiles lañ. Mhm. mu jël leen yóbbu leen hôtel 5 étoiles. ba ci biir Ziguinchor Mame Mbaye Niang li mu def ci tourisme bi biir Ziguinchor dafa bari waaw mais je parle en télé xaaral rek ci télé laay wax. ñoom ñu ngi may déglu ñu ngi may seetaan. kii liggéeykat la. ma ni la Mame Mbaye Niang le ministre Mame Mbaye Niang. liggéeykat la jàmbaar la. mbirum Prodac nag dañ ko tuumaloon mu dem ci ak fulla ak fayda parce que ci réew mi la dëkk. Mhm. am ñu ko bëgg am fi ay soppe am fi ay noon te amu fi ndax noonu la ndax moom xol bee rafet macha allah xoolewul kenn noonu. Mhm. yaa ngi dégg mu nekk fekk njabootam soxnaam nekk ci réew mi di dund njabootam nekk ci réew mi di dund mu ne ki ko tuumaal kaay ñu ànd nga teg dossier yi mu leer parce que man bu président Macky Sall paree damay dem liggéeyi waa may ma may ma xam loolu passé mais mais nag lan lan nga bëgg tontu leen ma ma wax la da may may Abdou mu ne leen bu président Macky Sall geexalee mandat man damay dem liggéeyi waat te du dem liggéeyi fenn ñu naan maan leeraloo dossier Prodac milliards yi da ko sàcc mhm. yaa ngi dégg. Mhm. ne Ousmane Sonko kaa ñu dem mu leer. mais mhm. Sonko moo indiwul ay document léegi nag bu dee sénégalais dañ koy demandé social Mame Mbaye Niang mi ngi ci réew mi tuxuwul demul fenn mi ngi fii ak njabootam Ousmane Sonko ñoom ñoo war a nguuru nii nañ tegaat dossier ñu xool ndax ñang baalo takk na wala laal na wala lekk na maa ngi xaar loolu. d'accord waaw yaakaar naa euh, saayata loolu am na solo. waaw vraiment comme ni la ko waxee à chaque fois dañ leen di xamal que ni ñi naan. télé bi télé Ousmane Sonko la. Mhm. télé bi télé ñepp ku nekk lañ fi invité. Mhm. donc élection yi maa la koy sànq ba léegi dina doon ci jot ay menaces. Mhm. naañu télé bi télé Sonko la. peut-être amaana tey bu Amadou Ba nekkoon président peut-être mën na demee neneen parce que foofu la ñu féetaloon. Mhm. di la wax nag am nañ mbégte vraiment. maa gën a kontaan ci suba ba léegi nga bàyyi sa temps. maa gën a kontaan ñu tardeel la loolu moom dama la koy wax ndax boobu dama demoon tournage. waaw 16h ba tey. 16 ba tey day yàq sama der. <laughs> mais kii kii kii kii na lii bi yëpp kii nuñ koy waxee. kan ci. Euh, kii bi léegi laay li ma meroon yëpp waaw tubaar fa kàlla macha allah laay PDG ndeysaan ku baax la mhm. waaw moom dëfal na ma daal ba ma dëf. d'accord dëgg neex yàlla. d'accord ah. boo boo boo amoon message booy jàllale di la wax ni amoon nañu mbégte di la dalal. waaw kontaan naa trop. Euh, mhm. beneen bi ki topp mooy. Mhm. dama leen di seedeel rek parce que yéen. Mhm. bokk ngeen ci ñi jàpp ci sama carrière mhm. tout le temps gis nañ ma sax du may dem fenn émission ñëpp a may woonat mais lu ci ëpp ci yéen laay ñëw Abdou mhm. te man bi may défendre ak gisa at ki dossier bi ba tey maa ngi ñëw ci yéen di wax euh, Ousmane sonk ay bal donc gëm naa ni fii même bu dee télé Ousmane sonk la wóoruma bu amutoon euh, égalité man duma ma fii ñëw toog di wax dëgg la waaw donc di di leen sant leen gërëm di wax télé yàlla na doon ay télé télé man li ma xamal nit ki rek laa koy seedeel mais damaa bëggoon nga may ma benn cinq minutes ma gërëm ñu nekk ci TikTok bi ñoo xam ne dañu àndoon ci liggéey bi comme daanu nañ mm-hmm. euh, ku ci mel ni sama yaay Ndey Ami Touré yaa ngi dégg mm-hmm. ku ci mel ni taalibe euh, taalibe borom kara Abdou depuis France Tafa Baye Fall Seyda Bamba mm-hmm. Calki Pastefen xam nga Moustapha Galsen Zane Tata Victoire Piccaam